askan sunu gaal saa ñu xëyee dégg bakkan rot na te du doon kenn ku dul koo xam ne rek yaay faagaagal sa moromu doomi aadama démb ci talaate bi jàpp àllarba gi euh, tey jii lañ jot information bi ci fajar gi ginnaaw démb ay 5 heures du matin wala trois heures du matin ab taximan la ñu faagaagal rey ko yaay ko rey bu metti bu ñaaw euh, foofee ca diwaanu Point E xàll ba jëm pharmacie ba euh, ginnaaw xibaar yu ñu am suñu ay source waa ji ab taximan la waaye dañ ko jam dóor ko dóor yu métti boo xoolee li nga xam ne moo jot a xew ginnaaw ñi ñu ko baaxee waxee moom moomee nag ñu ngi xamale ci xibaar waajoo xam ne la mu ngi dëkk foofee ca diwaanu yëmbal taximaan boobee noonu ginnaaw ba ñu xoolee information yi waaye waaj ji ab waay boo xam ne la njoolul gaatul maanaam ku si koo xam ne ci diggante bi la nekk rëyul tamit dafa tuuti waaye ñuul moom moomee nag ba muy dem ci taxem mu ngi soloon ab benn tubay zen bu bu bleu ak li nga xam ne mooy ab tiset bu verte ba muy génnee këram démb loolu la génnee ci xibaar bi ñu jox moom moomee nag dañ ko fekk mu ñu rey ko ci biir taxem dugal ko ci xamuñ nag ñan ñoo def waaye ci xibaar yi ñu jot jàpp nañ ne ñi ko def du benn nit dafa mel ni danoon xeex ak ñi nga xam ne ñoom la yeboon ci otom ñoo ñooñee faagaagal ko nag rey ko rey bu ñaaw duguleet nag ñu gis ñuy def lu mel ni senegal rawatina ci safaru taxi ginnaaw nag suñu yoon am na ñoo xam ne yor nañ liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci police Sénégal xam naa ni du yàgg nes dinañ jàpp ñi nga xam ne ñoo def ñaaw ñaawteef bii nii jot na nag ñu xoolaat mbir yi Sénégal saa ñu xëyee diw rey na diw diw jam na diw démb nag gis nga li nga xam ne taximaan boobu jàggale mu nekk lu méttee méttee métti ami internet Dakar live lépp lu ci am ci information dinañ leen ko indil fii ci Dakar live TV jërë ngeen jëf